xale yu góor ku nekk sëgg ci benn nag yore sa siwo di ratt meew ñoo ngi ci géttu sëriñ Axma Mbàkke bi nekk ci Touba ci commune bu Kokki bu ñu sukkandikoo nag ci kenn ci sàmmkat yi fii bés bu nekk dinañ fi jëlee lu toll ci téeméeri liitari meew. ratt yi dañuy ratt bu ñu xëyee suba teel bu ñu jullee suba ba pare dañuy ratt xont ba amaat ba ngoon ñu rattaat xont nag yi dañu am ay dix yi ay sept am ay huit. ngir jàllale meew mi man koo jaay yenn saay jafe-jafe lay doon ndax yoon bi nga xam ne moo jóge Touba Kaneen dem ba ci tali bi dafa metti lool ci jafe-jafe boobu ñëw doleeku ca ñàkk ay équipement ngir mën a bay ni mu ware ndax kilifa diine gi am na lu toll ci dix hectares yoo xamante ni ñoo nga fay bay gerte dugub ak ñebbe te lu ëpp ci ñi ne ci tool yooyu mooy ndaw ñi dëkk ci gox bi waral Sele Ndiaye di conseiller ca primature di woo autorité yi ngir ñu ñëw taxawu leen. di ñaan yàlla président de la république nag ak gouvernement gi bu bees bi taxaw ah ñu fas yéene yow jàppale la ndax liggéey rek nga xam ah koo xam ni day jàngale yoro ay tool di ko bay ah ci mu xam ni liggéey léegi lu koy def lépp matériel ko def ci gouvernement bi mën nañ ko am nañ ko nan ñuy ñaan yàlla na ko gouvernement bi jàppale. ministre de l' bu bees bii xam la ba jàppale la nga àggale sa liggéey ndax li ngay def lépp ci taalibe yi nga ko jëmee. bu doon jëmmi Serigne Ahmadou dong nga mën naa bañ a wax dara waaye dafa am population bu nekk ci gannaaw boo xam ne dañuy war a dimbale ñu war a am xëy war a war a bay war a def yeneen ak yeneen te loolu état moo ko man état nag kon na gestu Serigne bi gestu Serigne bi mooy geestu population bi ndax li ñuy wax nii amul lenn loo xam ne lu ciy jariñ Serigne bi dara la. laataa nag gouvernement bi ñëw di ci jàpp askan bi dëkk ci Touba Kaneen ak yeneen i taalibe daje woon nag doon sargal Serigne Axma Mbacké ngir liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci gox boobu. développement sëriñ bi loolu ci la santaane réew mi itam loolu lañ ñaan yàlla sëñ Axma ñëw teg ci loolu tànkam ngir lu ko lu ko ci namm dimbale taalibe yi rek lépp loo santaane rek sañ Axma ñoo ngi sa ginnaaw. moo dama gis ne tey yenn sëriñ yi def moom dëgg defu ko xaaru ci kenn ci leen te nit koy def social moom gën na ku nekk parce que boo nit ki nga xam ne xalaatul boppam di xalaat ku nekk kooku duñ def lu dul sant ko Oumar Kairé Louga Walfadjri